ngeen baal ma ma commencé benn élément wu Serigne Mansour Sy borom saamaam nee na Serigne Mansour Sy borom gaañi ma dem Serigne Mansour Sy borom képp ku mënta génnee sab taalibi fii ci 100 gii boo ko diggee aljanna ëllëg da nga koy nax radiallahu anhu Serigne Mansour Sy bépp sëriñ bu leen nibul jaamu yàlla dana la dugal aljana Serigne Mansour Sy nga ni bépp sëriñ bu bépp sëriñ bu leen nibul jaamu yàlla dana la dugal danaa la dugal aljanna waaw ba ameew yet dóoral boo ba ameew yet dóoral bu ma amulu yet nag bu amee mbëkk mbëkk mbëkkal nag kon fañal kon fañ kon fañal radiyallahu anhu ngeen may ma ma dem service commercial juste après ma delsi sëriñ Makhtar Seck jërë ngeen jëf yéen waa service commercial sëriñ Maxtaar Seck Mboro ngërëmal way jur ngërëmal way jur gàllaaj gu dul toj la aha yàlla ku mu naru tafay du la liggéey loo sëriñ Maxtaar Seck Mboro képp ku baax kon ku baax wéttali ku yaru nag ku yaru falo képp ku réer nag ku réew réer képp ku rëy nag ku rëy ñàkk ñu gën ku rëy ku rëy ñàkk ña gën kan mbaam waaye ku ko taa wàcc moo ngeetu la ku jàpp sax ruu jënde koo dina kese bu la sukkuraat ni yoo nga perte dégguma la de ku jàpp sax ruu jënde dina kese bu la sukkuraat ni yoo nga perte ku def sa bakkan yilimaan mu tàbbal la ci jàkka joo bëggul woon a jullee aha sëriñ Maxtaar Seck Mboro kon ñi baax kon ñi baax suñ yoboo juboo ñi bontu leen bëgg gàcceeg penc nag yett a koy yóbbee as gor mu yett yan waxtaana ko dof te déggal ko mu ni waxtaana ko dof te déggal ko nga ni gàcceeg penc nag ñett a koy yóbbee as gor bu jëkk bi moom nga ñu wax mooy waxtaana ko dof te déggal ko bu ñaareel ba ak diisoo kuy war ban moo ko ñetteel ak lépp alali jàmbur fooy ma de ak lépp alali jàmbur fooy yeew yàqoo yett fekke na ko mu ni ndax yett yàqul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko muy yett yan alal yàqulug bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekke na ko aha ay war yàqulug ànd waaye fu ànd yàqoo war fekke na ko Sekk Mbooro lan nga wax ci werante te werante jëf ju ñaaw lay taawloo aha jëf ju ñaaw sëriñ maxtaar sekk mbooro jëf ju ñaaw day yàqub bokk di yàqub ànd aha dañ ne ku iñaane say dono saw deewin ñaaw waaye ku iñaane ñaaw aha ndax sekkare akob sekk ak baatin ci néegub xam ba la ñuy dëkk mu ni ndax sekkare akob sekk ak baatin ci néegub xam ba ca la ñuy dëkk baatin yàlla bu ko xasee dugal ci dënn ba kaste ko ca fit ba ko war a may nettali ko yàlla du ko ca boole baatin soo ko nëbbee mu feeñal la waaye soo ko weeree mu nëbb la addina dafa laaj yàq sëriñ maxtaar sekk mbooro muy ñetti yan te yett yooyu lenn lu ci nekk luñ luñ ci jéemul lenn kanam la jëm ñàkk gu bon borom nu ngi wut a liggéey kanam la jëm mu ni ñàkk gu bon borom nu wut a kanam la jëm waaw loolu de moom dëgg la moom ban moo ko ñaareel jàngoro ju borom nu ngi wul a faj kanam la jëm booboo daba tey dëgg la ban moo ko ñetteel ñàkk xam te nu ngi wulaa laaj kanam la jëm <laughs> boobu de dëgg la sëñ Maxtaar Seck mbooroo waxaat ko ñàkk xam te nungu laa laaj kanam la jëm as yi ci àddina yaari a ci am solo benn as ju mu amul solo as tafur laa as gor aha as ndox feeñal na sobe waaye sétalu ko aha as xam-xam bu borom toogul noppiwul dina feeñal xamadeem tatu ko foog loolu de moom dëgg la te bu tàbbee ci pénc ñeent ko fa indi ñeent muy ñeent ñan ku ñu yarul jàngaluñu ku ñu ku ñu yarul jàngaluñu ak kan ki ñu jàngal te yareesu ak kan borom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a ak bëri ci jamono ji sëriñ Maxtaar Seck Mboro gaa ñi de xoolal dañuy yër rek de bëgg nit ñi xam leen nag nu nekk daañ ko def xam nga fu ñuy mujjee di kàcc pour mën a feeñ ak kan ak ku yaroo ci daara ju amul daa mu ni ak ku yaroo ci daara ju amul daa sëriñ Maxtaar Sekk Mbooro daara ju daa daara ju amul mënees na caa génnaale ay pexe waaye kenn du ca génne ak willaayam aha jaamu yàlla nu ngoo liggéey ku def sa bopp ku bàyyi sa bopp aha àjjana ak teraanga ku la ni yomb na dala koo bëgg a xañ aha ak xam-xam akum xel loo ci yóbbu fu ñu koy nawee boo ñàkkee fayda duutu yow aha wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci ëppale say bokk te doo leen bokk nga yàqoo yaa ko jiite say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi. Serigne Makhtar Seck Mboro Barsàq barsàq tuddul barsàq bersam sàq la kenn ku nekk da nga yegg xittam sàq yor sa loxo loo ca fekk yaa ko liggéey juboo ba juboo jeexit jubóog ci jëf ci baax a ci kaneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog mu ni kaneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fu ñu la tëral mu tëdd fa wallaay ndeysaan te dama ni àddina lu la ci xañ jàmm ba teelaa nelaw armeel yoroom bu ko la ko ëppalee nga ci Sëriñ Maxtaar Seck Mboro lan nga waxoon ndax damay wax ni jongama ku mu tax a ñaaw ci kaw suuf aha loo yàgg-yàgg ci kaw suuf di nga dee jongama rooti ñu sange la ko aha dees na la suul ba mu amee at jongama judd sa ginnaaw kon jëru waaw waaw sëriñ Maxtaar Seck Mboro alali addina alali addina ku mu tax a ñaaw da nga dem ba hôpital fekk fa boroomi carte grise ak i état ñu jox ko diggi kaasi meew naan ko tëkku aha kon jëru borom wërsëg wuy fo nag ñett lay àndal borom wërsëg wuy fo nga ni ñett lay àndal sëriñ Maxtaar Seck Mboro bu njëkk ba jongama ju amul kilifa mu ni jongama ju ah, wërsëg guy fo jongama ju amul kilifa lay njëkk a àndal jongama ju amul kilifa ban moo ko ñaareel texet mënu ngu wuta liggéey mu ni texet mënu ngu wuta liggéey kooku de xanaa mooy waajooju topp ngóor soosu noonu rek nga xam ne moom <laughs> ku ko romb mu way la abi yaay sama jàpp <laughs> Matar Seck mbooroo ban moo ko ñetteel doomi sëriñ ju xamul boppam mu ni doomi sëriñ ju xamul boppam sëriñ Matar Seck Mboro borom wërsëg wuy foo kon ñett ñii nga ñu wax ni ñu moom lay àndal sëriñ Matar sekk mbooroo nga ne ñett war nañoo moytu ñett mooy ñan jongama ju nekk ci dëkk fasul yéene am jëkkër te lu xew mu bëgg caa jëkk am ku am lislaam war laa moy wallaay ndeysaan ban moo ko ñaareel borom wërsëg bu nekk ci dëkk te du dimbali kenn ku des gor war laa moyu wallaay ndeysaan ban moo ko ñetteel koo xam ne askanu nga bokk kenn mus ci am moomu dëkk bu ñu la defee buur kuy baadoo la war laa moyu sëriñ Maxtaar Sekk Mboro ndax jongama ndax jongama ku dal la yem jàppal la ma lay fajal waaye bul bi tër ñi aha te bari na ku dóorul addina te dangaa yurul yet wa te it nit kenn ku nekk la konte lay kontar kam ci yow lay suxlu waa loolu de moom dëgg la moom kon sunu kër gee ka neex ku ñu ngàbbalu kon la ma koy wax foo fekk koy xeebub dépasse da koo sàkkul sëriñ Maxtaar Sekk ngoro ñeent la. Serigne Matar Seck Mboro. taqaleel ñu ngoro yi. ngoro sa mbokkum ndey. muy benn. wala sa mbokkum baay. muy ñaar. wala dëkk ji yàgg ju la jikkoom neex. Serigne Matar sekk Mboro. ban moo ci des. mbaa ku ay bokkam nga të say bokk loo ca fekk bokk ko ca loo ca dal nga muñ. mbokk yi di gërëm Baye Assane Mesre. di leen jox dig daje ci beneen waxtaan.